njëkkee Dakar xëy na du décision bu jóge ci euh, IA bu Dakar mais école yëpp gis nañu ni bu ñu nee suba dafay am manifestation wala dafay am yoonu tribunal dañuy daal di jël dogal ni élèves yi bu kenn jàngi xëy na bee autorité la boo xamante ni bii mu veillé ci euh, li am Ibrahima mu ngi joxe exemple sànq ci xale bi faatu bal rey ko Kër Mbaye Fall bokkul ci manifestation xale bu am 12 ans mënul xam philosophie ni idéologie pour bokk ci benn mouvement wala obédience politique. Hmm. te mu ngi noonu ñu dóor ko bal mu faatu. ay miim jóge ci gouvernement bi balaa ñuy egg ci loolu nag autorité bi ci boppam. Hmm. day jël dogal ni bu xale yi dem école lu jaadu la comme mënut a fexe moom ba manifestation du am ñuy manifester am na lu leen lu leen animé. li leen animé xëy na pour protéger seen leader euh, ñi koy topp itam. kenn kenn ku nekk am nga détermination ci sa côté kon na ku nekk protéger xale yi loolu moo jaadu parce que xale bi nekk victime yoonum nekkul ci manifestation bi en tout cas man personnellement dama dama saluer décision bi bàyyeeku ci IA mm. euh, te dina bëri ñoo xam ne itam même taxawaay boobu lañ ci am loolu moo gën ñu exposer xale yi ci ay ay yoo xamante ni bi mën na mën nañ ko moytu quand moom moo faatu woon ca diwaan bu Kër Mbay Fall eh, te eh, biir wàllum kaaraange bi réew mi Antoine Félix Diome waxoon ko faatoon tey ñu gis ne eh, li nga xam ne mooy certificat de genre de mort bi génnee na lu waroo ak kaddu yi nga xamante moom la Antoine Félix Diome génnee loolu ban jàngat la Mansour di ci am ci nga xamante ne moom mooy taxawaayu biir réew mi gisoon nañu te génnee bi nga xamante ne Antoine Félix Diome naka noonu génnee woon na ko ab bataaxal eh, ci faatu ki nga xamante moom mooy Adja Diallo di ndaw bi faatu woon eh, ci eh, yëngu-yëngu yi amoon ca diwaan bu Ngor. Birahim Diouf ñu ne ko sànq démissionné tey ministre bu fekkee démissionné wala itam war na def ay sanctions ci entourage ci côté économique ci côté. Euh, communication hmm. parce que mënoo nekk autorité ay nit di faatu te nit ñooñu faatu enquête bi du mujj du mujj fenn ngay précipité génn benn communiqué te tu es bien entouré par ay spécialistes ci wàllu communication. ngay juum ci anam goo xam ne jaaduwul boo waxee ba noppi euh, autopsie këyit wu wóor ñëw weddi la mu tegaloo répété loolu loolu kenn xamul lan lay niwa euh, dafay dafay wane juste càggante yenn saa yi gi nga xamante ni bii ñu ñuy jiite dañu koy dañu koy sàggane mosoon naa ko fi ci accident bu cyclo bi bi ñu fi jëlee seen xawma 22 xawma 23 mesures hmm. ma ne leen mesures yi benn du ci sax parce que dañu ko jël ci moment wu émotion émotion kilifa day dal du gis nga yi am ni yëpp même fitna yeeg manifestation yu intervention yi di am yëpp émotion la amul ci kenn koo xam ni yaa ngi doxal réalité bi nga xam ni moom la personnalité nit ki war a incarné ci bu événement amee jamono ji ñu toll psychologue yi ñu war a génn wax ak autorité yi autorité yi dañu war a wuti ay conseil spécial wala ay conseil technique yu seen xam-xam màcc jëm ci wàllu psychologie dañu laaj fajuwaat ci wàllu xel ci wàllu xalaat ci wàllu position ci wàllu réaction parce que ñoom ñëpp émotion daf leen animé fi mu nekk nii te bàyyiwuñ ci xel émotion daf leen animé bàyyiwuñ ci xel te dafa dafa dem ba jaxasoo ci seen deret ndax wàllu partisan ci wàllu politique ndax ay conseils yoo xam ne ay sympathie la mu ñu nekk la ñuy mujj nekk ay conseils yoo xam ne duñu la recadrer mais kilifa gu génne communiqué ci ay mort ay dee li nga wax lépp dañ ci diggante bu matul benn une semaine sa pose problème loolu benn la ñaaree bi ci des mooy mais ñooñu dee waxuma la njuumte gi ci lii moo leen rey fekk lii reyu leen mais même dee googu sax tey Sénégal yi war nañ ci am cëppaandaw joo xam ne di seen xel dina dal am réew munuñu faa nekk saa bu procès amee te dafa mel ni euh, faatu yi nag dafa ciblé procès Adji Sarr kese parce que Mame Mbaye Niang amul woon pratiquement euh, ay moora mm. procès mag Ousmane Sonko mais bu ñu tuddee Adji Sarr yi fi dafay takarnaase doo xam lan la F24 Mansour actuellement dugg nañ ci ci xeex bi ngir nga xam ne ñoo ñoo décédé ci manifestation yi ñu ñu ànd ci ay leeral est-ce que mën nañ ci am yaakaar parce que maa ngi koy wax sànq euh, Birahim bari na ci ay ay moor yoo xam ne am nañ ko euh, te ba léegi nii enquête bi peut-être woyul gis nañ fi bu Fulbert Sambou ak Didier Badji y a plein d'autres aussi yoo xam ni actuellement sénégalais yi ñu ngi ciy xaar euh, ay leeral. xam nga xam nga ki war a mhm. bu bëggul ku ko téeñ noppal na ko c'est-à-dire que amee. bu ñuy démarrer enquête ci ay way takk der la ñu ñoom ñooy commencer enquête bi enquête préliminaire yëpp ñoom ñoo koy def ñoom ci seen bopp bu amee lu leen dal te enquête bu xóotul man dama ciy màndu mais fukki nit ak juróom-benn yi dee ci ay manifestation te ay bal reyal rey leen te am ñu ci bëgg a épargner waa police ak waa gendarmerie mais kon nañu wax ñi leen di infiltrer te war nañoo leeral Sénégalais yi itam ñi nga xam ne ay policiers la ñuy nekk di bokk ci ay manifestation ñu xàmmee leen ak ay nervi parce que ñoom ni ñuy soloo la nervi yi di solo te gis nañu pick bi mbëkkoon booy góor a jóg livreur boobu nga xam ne yoonam nekkul ci ay manifestation mais càlla ba léegi amul benn enquête bu mujj fenn benn réew mu normal am justice di dox normal ay bakkan di rot ci biir réew ma ci ay simple manifestation te ba léegi mënuñu wax kan moo rey ñooñu waaye ça pose problème loolu moodul yoon te loolu la ñuy interpeller kilifa yi amul kenn koo xam ne coupable nga mais mais assassinat bu amee war na am coupable dañu leen a ñi wuta laal dañoo bëgg a def enquête ba kenn nit ñi dee dañu leen a laalul mais loolu jaaduwul man dama ciy bàyyi xel toujours ci nit ñi faatu à chaque fois ñu wax ma ne nit ñi faatu lan moo tax kan moo am intérêt pour rey leen te yooyu baaxul dafay dem ba mujj dafa am mit bu muy dindi xale yi bu ñuy dem manifestation dañuy sóoraale ñoom mun nañu dee kenn ku nekk da nga naan est-ce que man est-ce nekk sama tour cette fois-ci donc fit bi ñuy demee. dafay dafay mel ni ku dul ñoo xam ragal ragalatuñ ñi ñuy ñi ñuy jàkkaar lool te loolu danger la te état bi loolu du wàcc ci ñoom cest à def enquête leeral bakken yooyu wadd du mus wàcc ci seen bagg parce que ñoom ñooy ay kilifa mais mënta continuer toujours ay nit di faatu ci àllu kese te te du mujj fenn war nañu wax nit ñi leen di boom ñen ñoo leen di boom baneen bi ci des mooy foo loolu yàgg nañu koy wax ñu koy sàggane neer bi du maintien de l'ordre nervi xeetu samba booy la travail circonstance su samba booy la dañu lay fay ci benn bis bi wala ñaari fan ni la defal liggéey bu bon bii loolu am réew mu normal am état am gendarmerie du ko def beneen bi ci des ci wàllu formation xam nga li am ci procès Adji Sarr bi presse bi yëpp di ko relaté barki démb ak démb muy muy ay police ak ay gendarme yu xëccoo bay xeexoo ba ñu leen di filmer loolu munoon na ñàkk parce que ñoom ñoo tax ñuy wax état ñoom ñoo tax ñuy wax république ñoom ñooy assurer suñu sécurité bu ñu demee ba ñoom mooy émotion moo doon wax sànq émotion animé leen ba joxante cër bi dox ci seen diggante xaw a wàññeeku du rafetul ci image bu Sénégal te danger la itam ci am réew boo xam ne dafa am état te nga xam ne suñu sécurité ñun ñëpp way takk der yooyu ñoo koy contrôler war a joxe modèle bu am solo di def lu dañu leen di filmer ba di ko génne war naa tiital ku am xel ku nekk nag laa wax ku am xel ku nekk war na la tiital ñu ngi cof état ñu ngi cof république te ñoom seen kàddu bu amee doole seen kilifteef bu taxee ñu wax kilifa dafa aju ci ni dañu nekk ci état jiite ab nation. bu ñu demee ba na respect bi amatul seen diggante ak nation bi parce que nit ñaa ngi dee. te leen wu ñu leen defuñu enquête mujjul fenn mais dafay wàññi ñoom seen crédibilité dafay wàññi aussi confiance bi nga xam ni moom la peuple bi ñu jiite am ci ñoom. mais est-ce bi tamit euh, Birahim euh, comme ni ko Mansour waxee wàññiwul tamit li nga xamante moom mooy auteur bi nga xamante moom la ñu xamee woon les forces